asbillahi min alsheytaani irajim bismillahi irahmani irahim la hawla wala quwata illa billahi aliyil asim hasbuna allahu wa nimal wakim hasbuna allahu wa nimal wakil mbokki jullit mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu ku ne sa tur ak jiital ci nuyoo bi Cheikh Mamadul Muntaxal Bachir di ko ñaanal sunu borom yàggal ko fi lool ba lépp lum naa la liggéeyal sëñ Touba mu am ko nu mu ko bëggee ànd koog taalibe Serigne Touba yëpp ak njaboot gépp di dellu sant yàlla bu baax de wax na it bis bi ñu dajee ngir am kàddu yu ñuy sànni di ko jaarale ci suñ mbokki sénégalais yëpp rawatina ñi nga xam ne ñun lañ bokkal ne dëkk fii ci dëkk bi muy Touba laata ñu yëkkati suñ kàddu yooyu ñu ngi leen di wax ne ñu ngi jaale képp kuy sénégalais waaye rawatina képp ku dëkk Touba ndax tey dañoo yewoo tiis aku naqar wu métte métti woo xam ne yaakaar naa kuy ab jullit te gis image yi nga xam ne ñëpp teg nañ seen bët soxol dana tooy mooy taw boo xam ne taw bu bëree bëri la boo xam ne lor na ay loraange yu yaatu yaatu mu mel ne ci suñuy dëkkandoo la daal ci ay mbokki jullit yoo xam ne ay taalibe lañ yaakaar sëñ Tuubaa nekk fii ci dëkk bi kon nag ki nga xam ne loru na ci it faatu ñu ngi ñaan képp koo xam ne ni jot nga sunu kàddu nga ñaanal ko sunu borom jéggal ko ndax lii di ak lakk walla faatu ci ndox wala yu mel noonu ku ci ku ci ku ci ku ci ku ci ku ci faatoo rek suñ borom daal dina lay jéggal ah, di wax ne yit nag lu mel noonu bu amee it ah, day mel ne am na lu ko sabab ndax mbir mu ne du ñëw rek nga ne coobare suñ borom la wala yàllaa ko dogal dafa am ay cause yu koy waral te yaakaar naa ku ma xamoon xamoon na yàgg naa wax ci lu mel noonu di ci xeex di di xeex di di indi ñaxtu yi nit ñi ñaxtu ci biir dëkk bi te di ko jàmbata seen kàddu munta yegg ci ña ko war a dégg daanaa ci daanaa ci wax lu bëree bari mu mel na li tax jataay bi ñëw sax lu mel noonu koy indi moo tax ñu indi jataay bi ngir xëy na suñ kàddu bu fekkee mun mun munta saafara lu bari it fañ yi am yéene dem fa ngir liñ tuddee péncum ndaw yi réew ma njortu nañ ne xëy na bu ñu fa demee li ñu bëgg mu saafaro mën naa saafaro kon nag bala ñoo continuer ci waxtaan wi dafa am ñu ma seqal jataay bi te liñ naan kuy wàllu yaa ne sa dëkk daa tëggul mu mel ni samay dëkkandoo liñ tuddee HLM ak li ko wër mooy ngi daan ak Gede mu mel na dafa am ay njiit nag yu nekk ci bërëb bi ñoo xam ne ñoo jiitee liñ tuddee ay mbootaay man nees na tudd soxna Soda kamara ak soxna Fat Jang mi nga xam ne moom it mi ngi ci jataay bi ñoom ñëpp it ñu ràññee seeni liggéey ak seen taxawaay waaye sama mbokki yoo xam ne den nañoo ma nag muy sëñ Dambay ak sëñ Ousmane ak ñoom Serigne Mbaye seen ak euh, gaañoo ñëpp rek nga xam ne ñu ngi ci jataay bi mu mel ne liñ tuddee ay ndaw ak i mag ñoo nekk ci jataay bi te ñoo ñëpp ñu ci bëree bëri liñ tuddee patriote ay patriote lañ bëgg seen réew baatu patriote mooy bëgg sa réew kon nag képp ku ñëw ci jataay bi rek ñu ngi lay jox sa wàccuwaay di la sant di la gërëm di wax ne lii muy woote bi ñu woote suñu koñ bii la génnut suñu koñ bii liñ ci jublu nag mooy booy tàmbale mbir da koy tàmbalee ci sa dëkk booy tàmbali mbir it na koy tàmbali ca ña nga dëkkandool te am ak ñoom jàmm bu ko defee doog di yaatal mu mel ne li tax ñu woote woon mooy liñ tuddee assemblée nationale dañ ko tasoon fan yi ci ginnaaw te ku ne xamoon na ne Pastef taxawaay biñ ci amoon yaakaar naa waxoon naa ko waxati ko te yàlla dañoo bindee ne liñ tuddee boo amee ak dund mooy liñ tuddee ab dund boo ko yoree mu yem ci yow ak sa njaboot kon sam xel gàtt na adduna nii adduna it ni ngi ci bëgg dundee suufe na lool mu mel na dafa war a am ñooy jàppale am ñoo xam ne war nga leen a taxaw te loolu it bala nga koo doolee koy def looloo tax ñu dugg ci lu mel nii te biñ ciy dugg it dañ ciy duggee positif ndax yaakaar naa ku ne xam ne ne bu fekkoon am koom la jamono élection yi jàll ci gannaaw muy li tuddee élection présidentielle yi bu dee am koom mooy wut mooy du xaalisu kese mënees na ko woon a am bu baax a baax ndax appel bu ne jotoon naa ko waaye dama ko dummuy woon waxtu woowoo saa su ne sa bakkan mi ngi woon ci xottu gerte du muyu du muyu naa loolu ngir jàpp ne ñi ci faatu gënuñ maa gore waruñ maa gën a gore ñiñ ci dagg seeni tànk ñi seen bët tuuru yooyu yëpp jaar na fi yaakaar naa bi yi ma def ci ginnaaw sax mën naa wone lépp muy ay cause yoo xam ne xeex bu metti la woon boo xam ne nii yaakaar naa sunu mbokki police yi sax damay wax ne li taxoon ñuy protesté wu donte bëggatuñ mu am fi ndax lu ñu naqari la waaye bu ñu demee ba jël suñ seen mbokkum sénégalais di ay di xale jël ko jël taf seen kanam ngir bañ ñu leen sànni kon xeex ba méttoon na ci ñoom kon sénégalais yëpp li ñu war a def def nañ ko li ñu tuddee góor baax na jigéen baax na it amoon na ci ndax yaakaar naa ko xaw xool côté bële ay góor nga gis ku xool côté bii ay jigéen nga fi gis kon xeex bi ñëpp a ci jàppoon man nag la may wax ne bu dee ci dereeti sëñ Touba damaa jaayoon njuréel gi jënde ko taalibe dugg ci terrain bi am na bis boo xam ne xeex bu mujj bi dem naa Mbàkke loolu yaakaar naa ñu bëri teg ba may dem ñu bëree ma woo am na ci samay mbokki bopp yoo xam ne it mere woon nañ ma ci la taxoon ñu may mere mooy jàppale Ousmane Sonko dañoo jàppoon ne woon dëli la lu bon la bi mbaaxoo ñëpp ànd di ñëw bëgg a jariñoo lu xoromoo xoromu la waaye àdduna noon la baaxoo dees koy muñit ndax waxtu wañ koy bonal ñun dañoo taxawoon ne daa baax fu ne ñu dem fa di ngir ngir yëkkati jëmmam la taxoon ñu koy def it du lenn lu du Tuubaa gi ñun amuñ lu dëkku dëkkub Sëñ Tuubaa bi ku ko jàpp ñu jàpp la ku ko bàyyi ñu jàpp bàyyi la ba tax na it mosuñoo teggi sunub tànk ngir lu koy jëmale kanam muy projet bi ndax dañoo jàpp ne luy amal njariñ askan wi la te wolof day wax ne ku yàkkamti man ngaa bañ a fekk njariñ kon comme andil nañu projet bu baax buñ sañoon ñëpp ñëw taxawu ci waaye nag taxawu googu it ginnaaw bu ñu doonee ab boo xam ne duñ mën a wax suñ bopp ñun ñooy ñan ndax wolof nee na saabu du fóot boppam fi jamono toll it dañuy wax ne sam mbokk bu la pres bu la présenté boo moytu njuumte mën naa am ndax léegi ci jamono ji ñu toll bul nangu mukk sa mbokk di wax yow yaay kan kon maa ngi lancé appel état bi képp ku leen laaj suñu jëmm ñun ñooy kan na ngeen ñëw ba fu ñuy dëkk ndax foofu la jamono toll jamono moom daa toll ci koy laaj kii ku mu doon na nga ñëw ci ay dëkkandoom wala ñi ko jege dëkk dëkk ndax loolu politique moo ni demee boo ko laajee sa waay rek wala koo tasal ci mbedd mën naa wax lu mu wurta wax ci yow ngir ab yàq élection député mu li tuddee pencum ndaw yi réew ma ñëpp sàkkoo ngir teew fa ndax bëgg sa réew bokk na ci jaamu yàlla ni ñi ñëpp sàkkoo ngir teew fa noonu lay sàkkoo ngir bëgg fa dem lu tax mooy damay bëgg gis lu ma bëgg a ko mën a faj mooy li ma wax léegi di dund yemale ko sa doom ak ci say soxna loolu dund gu gàtt la loolu koo ko xam-xam ne dund ku suufe suufe la man dama yàlla dama nattoo liñ daa xalaat fii ci dëkk bi yëpp yàgg naa ko def xëy na nit xam ko wala mu bañ koo xam muy luy tudd ay garab wala jéem a dimbali nit ca la ma man yàlla tax na lu lu ñuy wax nag ndax loolu moom boo ko waxee njësta lay nuru waaye muy jëmbati garab ak lu ne daanaa ko jéem a def ci sama alalu bopp bañ naa ko ba damay génn sax di jëmbataale loolu lépp li ma ci daa jublu mooy ay signes yu rafet ndax projet bi li mu indi mooy ku ne dangaa war a jug ngir defar ñu fekk si la lu man nag loolu ba ma ko jéem a def daanaa ko def man naa am nit ma bañ koo xam nag waaye daanaa naa jéem a def acte yu mel noonu kon maa ngi tàllal sama loxo di wax ne képp ku dëkk Touba maa ngi lay tàllal sama loxo di la woon ne la assemblée nationale boobu ay nit doo nga fay dem te compétence rek moo fa moo fay tax a dugg te ñàkku fi bëgg sa réew it moo fay tax a dem ñàkku fi bëgg sa dëkk it moo fay tax a dem ñàkku fi ndax dëkku sëñ Touba bi yàgg nañ fee xeex ci muy ci mbënd mi muy ci lépp loo xam ne ni jaaduwut te loolu ma doon xeex yàlla woo yàlla daa àtte ne Ousmane président Diomaye Faye dafa woote le 17 septembre man ma woote di set novembre kon day mel ne mbirum yàlla feeñaan na ci septembre boobu ma woote la ma doon kaas yi it yàlla mel ne ne àtte na maag ñi ma doon kaasal ndax la ma doon wax naan gis nga wuti motoori pompe di ŋacc loolu du solution parce que taw bi yàlla bi moom yàlla du tàggu kenn daanaa ko tooñee ci ay ay nit sax naa leen buñ ma bëggee wax naan ma nee ñaanal bu mu taw ak ñaanal ma ne leet daa am loo xam ne mbirum suñ borom la du ma ci xuusandi comme xamoo suñ borom nu muy indee tawam ak taw bi nu mu mere mel li ngay war a def mooy teel a prévoir waaj def ay ay ay infrastructure yu mag a mag yu yaatoo yaatu yoo xam ne deux voies yi nekk Ndindi sëñ Fallou muy yoon woowu nga xam ne moom lañ na wax tëli sëñ Ndindi sëñ Fallou ak tëli Daarul Moxti bii ay mbedd yu yaatoo yaatu la sëñ Cheikh Gaynde Fatma daa teeloon a programme Touba Touba ku bëgg mu defaru defar gi yomb na dafa am nag loo xam ne ni système bu fi nekkoon boo xam ne saa suñu waxee ne dañoo bëgg a changer bi am ñu bañ loolu moom lañ bëgg muy continuer mooy ay lobby yoo xam ne xaalis bu dul bu junne boo fi tegee it ñu lekk loolu moom ñëpp xam nañ ko xaalis bi ñu wax ne def nañ ci dëkk bi bu fekkoon def nañ ko fi nit ñi duñ loru li gën a suufe nag mooy nit ñi loru ba noppi nga yëkkati saakoy ceeb ak yooyu di loolu du dara defal nit ñi ay mbedd yu mag ay rigol di fa jaar yoo xam ne day def ay sorti lu mel ni ndindik sëñ Fallu daanaka dem ba yoonu euh, daara jolof yi man ngaa dugg ci àll bi lu bari loo xam ne nii dañ fay kere ay bassin yoo xam ne yu mag a mag la yoo xam ne ay euh, ndox mu ñëw dana mën a jàll bu ko defee nit ñi nekk seen jàmm bu nawet ñëwee du ñu bu noor ñëwee du am problème waaye dëkk boo xam ne saa su xiinee nga gis problème yi tàmbale loolu lu ñaaw a ñaaw la loolu it feeñ na ci ne euh, taf yëngal bi ñuy def bu dii suuri màggal yi sësee nga gis ñu fatt mbedd yépp mooy moo indiwaat lii bañ nañ ko ba nag gàcce war nañoo rey ndax lu mel na néegub yàlla bi nga xam ne moom la bàkkuñu bàkku ñëpp gis ngeen ndox mi ni mu fa mel ba ci biir kër sëñ Tuubaa gi ndox ma dugg fa loolu négligence ak waaj waajtaay yu yéex moo koy waral am murid na xamewuñ ko woon loolu parce que ñun doonee dañoo manqué doole maanaam dañu amul xaalis ñu def taaliba sëñ Tuubaa yi buñ woon sëñ bi woote na fa saasal la ñuy indi kenn du xam nu muy toll nit ñi am nañ détermination li mbalem yi ñuy def alxames ak yu mel noonu bu doon yeneen dëkki taax yi état ñoo koy defal seen bopp nit ñi fas yéene woo génn seen kër di bale waa jumtukaay yu mel noonu boo ko amee da nga yombale nit ñi seen seen liggéey ndax li ñu tuddee mbootaay ñooy def alxames ñu daje bale mbedd yi ba mu set waa léegi waroo mën a am oto yu doya yoo xam ne ni mbalit mi bu ñëwee nga jël yóbbu extra extra kon bëri na loo xam ne Touba dafa am sensu man koo am ba noppi it mu mel ne ceetaan gi da ëpp li fekk nag bàyyiwuñ dil yooyu muy am ci dëkk bi nga xam ne ay lobby la yoo xam ne man ngaa mën ngaa tudd nit ku yu ku ci bokk mën ngaa tudd ñi àndal ñi li ñiy liggéey liggéey bi ñu lëkkaloo lool nag bu amee mooy indi yii di am nawet bi ñëw masawu rek ngay man masawu nit mënu ci dëkk day am waxtu yoo xam ne solution nga yam état bi nag di ñëw état bi muy état bi doog di toog mëne su leen a dut baaram parce que lu tax mooy am réew kenn du ko yore ci ñeenti weer ak juróomi weer nga bëgg koo xarab heureusement bi ñëwee ci màggalu Touba gi indi nañ ci huit cent mille huit cent millions ci wàllum mbir di yaram gi boo xoolee ñi xam dëkk bi xam nañ ne nam doon tëjee daaw robinet yi ren xaw naa wàññeeku kon mel na ne bu ñu amee yenn at yu bëri mën naa am yàlla def ci sutura man li may wax rek man naa bëgg mbir bëgg caa taxaw bëgg caa dox waaye nag duñ ko booleeg ñàkk ful la ndax sénégalais yëpp bi ñuy xeex xeex nag loolu image yi wan na wane na ko man fi ma waroon a dem dem naa dem naa ba def lu ma wurta def ci ni ñu xoolee ab sëriñ waaye loolu lépp ngir bëggoon jëmmi Ousmane Sonko ji comme ni ko sénégalais yi bëggee yëpp moo taxoon ñu def ko lañ doon xeex yàlla def na mu sotti sama dëkk maam bii la am bu ma sañoon nii fépp jege tubaa jege ko damaa jàpp ne kuy xeexle tubaa maa ci gën a yey looloo tax may tàllal sama loxo loolu Ousmane waxoon nag laay waxaat rek bu ma yàlla mayee ma sant gërëm bu ma xañee ma muñ te wax ne ab jaam saa su xëyee nay wuti waaye am ngeeg ñàkk gi moom mu ngi ci loxoy suñu borom am ngi it fes na fas yéene nañ bu suñu borom dogaloon bala ñoo tàmbale di dimbale kenn wolof naan bàyyi sa wewu tànk ndax ñii ay mbootaay lañ yoo xam ne am na ñuy bëgg-bëgg te jigéen ñi doon ay jàmbaar yoo xam ne war na war nañ leen a taxaw taxaw gi nag du aw làmmiñ rek ku koy am aw làmmiñ rek ku koy def son ñun dañuy jëlee exemple yu bari ci Ousmane Sonko ndax am na fi euh, euh, salaire député def ko addiya di ko jox ay ay ay ay de santé bu mu jumut ñu koy fajoo wala yu mel noonu. kon yooyu mënees na ci jëlee ay leçons yu bëree bëri bu dee ci dëkk bi it ma waxaale ne buñ bëggee gañewaat ko nañ ko gañewoon dañuy xam ne Touba dee su leen jënd ci affaire xaalis loolu état bi faw mu teel ko xam Touba du ñu ñu jënd ci xaalis bu doon loolu état bi ci jàll lim fi dugal ci xaalis kenn xamul nu mu toll te terewut daa perte Touba dafa am na ñuy ànd ñoom mooy Serigne Touba dañ bëgg ku leen bëggale Serigne Touba ñu bëgg la ku ñu xamee ne nag bëggoo Serigne ñu. man sama jëmmi bopp ku ma xam ne bëggu sëñ Touba bés booba laa lay suuf heureusement nag bu dee président Diomaye Faye bi mu ñëwee liñ gis ci profilam li mu wone mënoo ne daa ñàkk kersa mënoo ne amul war ma ay teggin la woon suñuy kilifa yaakaar naa ñi ñu doon wax ay taalibe lañ sax moom bi mu ñëwee daa def lu raw loola ay dàllam lay ay dàllam lay summi bu ñëwee ma ji mu jox suñuy kilifa gis nañ ko te xam na ne président de de la république li ci sécurité am yëpp dox ci suuf sax wóorul ci moom waaye du tee day fàtte boppam da nga gis mag moo xam ne du am kàttan mu ñëw jàpp ci ab loxoom yëkkati la ngir ak ñawante ak yërmande loolu nag basiir googu ngay dégg kon mel na ne tawféex la ci moom loolu nag comme am nañ ku mel noonu dafa am koo xam ne nag liñ tuddee waxoon naa ko fan yii muy cin ci benn sëb la muy Omar Diagne damay wax ne buñ buñ naagu ci ne mën nañoo gañaat élection yu Touba ba naagu ci ñu continuer Omar Diagne ñi waxuñ ko boppam Omar Diagne dañoo wax war a wax ak moom parce que day laal ay pas-pas te pas-pas nag kenn du ko laal dañuy wax ne nit kenn du ko xeebal pas-pasam te man loolu maa ngi ñaan képp koo xam ne Pastef nga te nekk Touba nanga nga teel ci jug ñu bañ a woyofal lii affaire Omar Diagne bi mën naa yàq lu bari de parce que ñun ci mbedd mi la ñu nekk dañuy fréquenté ñenn ñi am na ñoo xam ne ni dañ naan yëfi Omar Diagne bii moom bis ni ki tey génn naa ci lu mel ni kon képp koo xam ne ni bokk nga Pastef te nekk Touba lii suñu rôle mooy ñëw dankaloo doon benn fexe ba la ñu amoon lu ko raw ñu am ko donte comprendre nañ ni njiit yi yàlla defal na leen sutura lawoon ca ñoom ba léegi seeni wax gisuñ lu ci lu ci deñ loo xam ne ni wax nañ ko te dañu mooy kersa ak jom ak gëm sa bopp ak bëgg a liggéey loolu mu ngi ci ñoom waaye benn benn yi nar yàq nañ fexe ba dindi loolu mu set bicc mooy xool beneen yoon wu jaar jaarale ko mu génn ci pas-pasi jàmbur yi muy laal ak képp ku mel ni moom ndax loolu day indi fitna kon nag maa ngi jéggalu bu baax a baax di wax ne lu mel ni yee taxoon ñu ñu ñu dajee fi di wax ne ñu ngi tàllal sunu loxo képp ku nekk baax ndax fii ay jeunes ngeen fi gis ak ñoo xam ne dañoo tollu seen digg doole yore seen carte ngir bëgg a dem ci élection yi noonu it ñuy bokk ci dereeti sëñ Touba ndax boo ne kenn ne ñaar yegg ci sëñ Touba kon ñun suñu dëkkum maam la ñuy xeexal kuy xeex nag di ko wutee feneen gënoo ñoo yey ci xeex bi gënoo ñoo bëgg dëkk suñ dëkkum maam bi. lu mel noonu nag boo amoon doole joo xam ne ni da nga am sab salaire wala nga am sab liggéey boo xam ne ni nit dana mën a ñëw ndax fi ay jeunes fi ne ñii bëgg nañu am nañ jom mais. da nga gis koo xam ne na na yore place am boo xam amul doole ju ko def léegi man day ñëw ci mën naa ñëw toog ak man di waxtaan ma am yéene ji mais amul doole ji léegi man faaw kon ma jéem wuti pexe te sëñ Sàmbay nag da doon wax ne adduna ci xeex lañ koy amee moo tax man ba ma xamee loolu ba léegi ragalu moo tax ma daa wax ne ne ragal yi ragal yab ragal moom bokk na ci yab yàlla moo tax jamono élection yi bu ñu daa wax naan moytul dama nañ laa faagaagal ma ne ma ne leen bàyyi leen ragal gi ndax ragal moom yàlla la moo tax ragal moom moom ma ko ci samay mbir wax dëgg bu fekkee moo tax nit di ma bàyyeeka di ma mere moom danañ xam ne moom du ma gaaw a am dara état ab Sénégal bi it nañ xam ne bëri na lu ma ñàkk ñoo ma ko xañ loolu jublu moo leen ko wax di leen attaqué waaye maanaam pour ñu xam rek position bi ma nekkoon ak ni mettee ndax nañu xam ne position kër sëñ Abdou Khari nekk loolu nag nañu xelaat position boobu ku fa nekk lan ngay daj bëri na lu loo xam ne maanaam ànd ak usman Sonko moo tax ñu xañ ma ko loolu nag waxtu wi da da liy tax moom muy bu mbir yëpp ñëwee ku ne bëgg a jëm mel na gàttu bu ñuy seddoo di bàyyi ñenn ñi liy tax muy metti suñuy xool mooy waxtu wa ngay jël ay position di xeex kenn xeexul ñu dem ba xeex bi noppi ñu ñu ñu jël ko mel ni kuy seddoo gàtt di la teggi te man yii yàlla dama ko nattoo fuñ ma wowut duma fa dem sama kili këru kilifa yi nga xam ne ni ñu ngi leen di xam buñ ma fa du ma fa dem wala bëriwu ma fay tànk noonu la ma yàlla bindee Ousmane bu doon ñëw fii junnee at ci Touba gii te woowuñ ma fa duma fa teg sama tànk noonu la ma yàlla bindee kon nag loolu faw ñu xam ko waaye bëgg gi moom am na ensemble it bëgg nañ faa teew kon ñu ngi tàllal loxo ñëpp waaw ensemble moom yaakaar naa li fa doon taxawaay yomb na mooy tuubaa yaa ngi dégg ñu ne ndindig sëñ kër Ñang euh, Ndaamaatu Madiyana Touba tey bu ñu ne woon fu inondé fa lan ngay wax fépp a inondé léegi nag bu nawet bi jàllee am na fuy am problème am fu ko nit ñi danañ xam ne yow mi député nga pencum ndaw yi réew ma da nga fay teew da gis ñoo xam ne nii dañuy ñëw wax leen seenu saw naqar seenu naqar bu ko defee nga dem jàllale ko jàllale ko ci pencum ndaw yi réew ma ko état bi jéem koo saafara loolu mooy mbir mi maanaam dañoo nekk ci nawet booy wax ci nawet bi ngay wax problème yi am ci quartier yi ndax yaa ngi dégg ñu naan sura mais mi noonu la mel li wax naan mbir bu ñëwee nga bañ koo xeex daay gu daay gu day lakkaay lakkaale gu tooy mi ngi ni ndax inonda inonda bii am kenn mucc na ci ñi ñu tuddee taalibe yi am nañ ci problème ñi ñu tuddee sëriñ si am nañ ci problème ndox mi fépp lu dugg ndax yàlla xamewut kenn solution bi de mooy génne leen fa ñu nekk wutal leen fu ñu nekkaale buñ jógee ci nawet bii tàmbalee def ay travaux yoo xam ne ndox du fi gaaw a amati ci dëkk bi wuti ndox mii sax ndax naan nit ñi dañuy naan am ndox baax na de waaye nag def ay travaux yu mag yoo xam ne nii ndox du amati taa du duñ ko gisati dëkk bi gis nañ ne mooy mooy solution bi parce que màggali Tuubaa yi di ñëwaat day nekk ci nawet bi ba léegi mi ngi nii nawet baa ngi tàmbalee xaw a sore téréwut gis nga taw bi yàlla indi démb te nee nañ day demaat ci ay quelques jours léegi nag solution bi mooy def ay travaux yu te bàyyi moteur yi pompe yi mënul dara ci ndox mi loolu moom na ko ñëpp xam rafet na nag parce que nit ku bu jaaxlee loo indi luy luy indi solution rek baax na mais moteur pompe ñaata yoon lañ ko def te buñ continuer di ko def day mel ne mooy politique yi fi jaaroon rek bu tawee daal nga mel ne da ngay xoññe na ñi di leen naqaral indi sa quelque moteur pompe mu jeex nga mu leer na la buy tawaat mu ñëwaat loolu du solution solution mooy fu nit ñi mënta dëkk foo xam ne ne ndox fa ne tam lii da lay wóor ne moom nii lay continuer nga jëlee fa nit ñi wutal leen fa fuñ dëkk parce que am na ñoo xam ne ñàkk pexe tax ñu nekk fañ nekkoon ba léegi bu ko defee ñeneen ñi nga xam ne mën na mën mën nañoo mën nañoo mën nañoo mën nañoo dem feneen ñoom ñu toxu feneen bu ko defee tëli yi ñuy def ndax xoolal yow Touba li liñ fi ñàkk ci xaalis ci ay tëli bu fi def ñaari at ñetti at loolu mooy kon dañ ñun daa mel na dañoo am alal yu jeex di ko yàq rek tëli bu àndoon ak accompagnement boo xam ne nii dafa am ay travaux yu nekk ci suuf ndox mi di fa jaar rigoor yoo xam ne ni yu mag a mag lay doon tuubaa gi fu neex a defar la ki yàlla jiital muy sëñ Cheikh Gaynde ma nekkoon fi ci xam-xam la doon defee waa ñun dañ ne sëñ tuubaa dañoo bokk ci sët yi nga xam ne ni sëriñ bi da doon ñaan ñu ñëw mën a mottali mooy yeesal yeesal gi kay mooy defee ci xam-xam defee ci xam-xam mooy li ngay def dee ci suuraale nit ñi ngir nit ñi mën a jariñ waaye bu fekkee da ngay sa bopp wala dajale ay milliards wala dajale am koom léegi xalaatal borom doole yi fi nekkoon te jaar fi mënuñoo tëdd ci lu dul lal waaw mënuñoo tëdd ci benn lu du benn laal étage lu mu bëri bëri it ci benn kër rek ngay mën a dëkk kon loolu nit bu xasee xam day suuraale aw askanam parce que mooy priorité mooy li ëpp solo